asalaamaaleykum mbokk Sénégal yi nekk fii ci itali yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp tey nag moom suñu journal bi am na <laughs> ab retard ndaxte dafa am ay téléphone yu ma nekkoon doon toppatoo seen doon wax ak ay nit ci toujours rek ci mbirum coronavirus bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp yéen ñi nekk. Euh, Italie ak ci àddina bi yëpp di déglu rajo bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm loolu lay njëkkee tey di wax ne euh, mbir mi euh, doy na waar waaye nag mbirum yàlla la nañ ko jàppee ne mbirum yàlla la te yàlla dong moo tax mbirum feebar bi jóge fi xanaa mbokk yi dañuy commencé rek di niñ koy faral di defee bés bu nekk di joxe information ci mbirum chiffres yi nga xam ne protection euh, civile chaque jour à partir de six heures day joxe xibaar yi di wax ne euh, démb waxoon naa ko njiiti protection civile boobu tudd li nga xam ne moom mooy directeur bi euh, ak kaka fa jiitu woon ñu koy wax Bertolaso Bertolaso moo nekkoon njëkkoon nekk directeur bi mais moom waa Lombardi ñoo ko jëloon pour mu coordonner mbirum hôpital bu bees bi comme ni ma leen ko waxoon démb moom yàlla def na wax dëgg yàlla feebar bi da koo dugg ba fi mu nekk nii ma nga hôpital xanaa ñu ñaan yàlla rek mu wér ak jàmm parce que ku waroon tabax hôpital mujjee ci hôpital mbir mu doy waar la euh, ki nga xam ne nag moo ko wutu woon ci protection civile ñu koy wax euh, euh, li moom it dëmb yaram bi da doon tàng ba tax mu toog këram yàlla def na def na ci jàmm parce que moom biñ analyser affaire bi gis nañ ne. yorewul feebar bi xanaa rek coono moo ko jàppoon euh, euh, lii wax dëgg yàlla day wane ne feebar bi amul ku ñuul amul ku weex amul ku am amul ku <laughs> ñàkk ñëpp la yemale lii gars yi di wax mbirum démocratie tigi la feebar bi dugg ndaxte suñ yéeg démb waxoon naa ko fi tamit suñ demee ba prince Charles ca Angleterre mu dugg ko ak euh, ak prince Ranieri bi nga xam ne moo nekk ca Monaco mu dugg ko. nga xam ne wax dëgg yàlla feebar bi bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn yàlla nit ñi yàlla musal nag mu yem ci xanaa rek damay ñëw mbokk yi yegg si ci niñ koy faral di defee ci information yi nga xam ne euh, moom la protection civile euh, di joxe fii ci Italie mbokk yi xanaa rek tey ñoom it jox nañ euh, chiffres yi adjoint Borelli moo toog ci place am tey mu wax ne li nga xam ne feebar bi mu ngi toll fi mu nekk nii ci quatre-vingt mille cinq cent trente-neuf personnes. bi mu commencé ci Italie ba léegi ñoom ñoo ñoom la feebar bi dugg am na ñu ci wér am na ci ñu ci génn àddina ñu ci génn gum àddina feebar bi bi mu commencé ba léegi mu ngi toll ci huit mille cent soixante cinq personnes wax dëgg yàlla bëri na. Italie xam ngeen ni ngeen ko xamee fi mu nekk nii mooy réew mi nga xam ne moo ëpp ñu génn àddina ci mbirum euh, feebar bi Espagne moo ci topp. Euh, euh, États-Unis topp ci euh, Chine topp ci États-Unis topp ci te ndax feebar bi mu ngi jóge woon foofu ci Chine mu nekk nag mbir mu doy waar mbokk yi xanaa rek di métti lu tamit ñi nga xam ne démb ak tey ñi ci génn àddina fii ci itali mu ngi toll ci 712 personnes 712 personnes ñoo ci génn àddina démb ak tey mu mel ni mbir mi wax dëgg yàlla xaw na doy waar. xanaa rek ñuy wax ne eh, liñ yaakaaroon ne mbir mi dina wàcc dafa mel ni des na daal dafa mel ni daal des na parce que nag dañoo yaakaaroon ne Italie am na foo xam ne feebar bi su fa tolloo su suy wàcc suy am na foo xam ne su fa tollee day commencé wàcc dootul yéeg waaye nag gis nañ ne daal des na des na des na des feebar bi des na te nag Italie ñu ngi commencé continuer di joxe. Euh, test yi te démb ak tey rek biñ ko testé ñi nga xam ne ñoo ko yore euh, lañ feeñ muy 4492 personnes di wax ne feebar mi mu ngi law ci àddina bi tamit mbokk yi parce que fi mu nekk nii nee nañ li nga xam ne ñoo ko yore ci àddina bi mu ngi tul toll ci 500 500 mille personnes euh, waaw ci ci àddina bi mu ngi toll ci 506 personnes di wax ne ci Europe rek li ci génn ci àddina mu ngi toll ci 15000 morts. di wax ne feebar bi bu njëkk épidémie lañ doon wax waaye léegi ñu ngi wax pandémie euh, épidémie nag suñ koy wax mooy feebar bi ci ab gox la nekk pandémie nag suñ koy wax mooy feebar bi law na ci àddina bi loolu mooy pandémie donc ñu wax ne léegi feebar bi dépassé wu noonu épidémie parce que ñàkkul ngeen koy dégg épidémie suñ koy wax mooy feebar boo xam ne ci as gox la tas su demee nag ba tas ci àddina bi organisation bi nga xam ne moo yore mbirum santé ci àddina bi muy OMS ñoom xam nga bu yàgg ci ay fan ci ginnaaw déclaré nañ ne pandémie la maanaam pandémie daal wax dëgg yàlla mooy feebar bu tas ci àddina bi ndaxte nag gis nañ ne amul réew bu mu amul fu mu nekk nii xanaa ay ëppante diggante réew ak réew rek moo ci am waaye feebar bi moom ci àddina bi mu ngi tas xanaa rek di wax ne mbokk yi euh, am na nag euh, benn yaakaar bu am. benn euh, ca France ca Marseille dëkk ba ñuy wax Marseille benn docteur bu ñuy wax Didier Raoult Didier Raoult moom médecin la yàlla def na sax Sénégal la juddoo Dakar la juddoo ca 1952 moom Didier Raoult bu mu ku bëri xam-xam la nag ci mbirum euh, feebar euh, yu doy waar yooyu feebar yu wàlle yooyu ñu koy wax maladie infectieuse moom nag fële ci ginnaaw ay bés daf ne feebar bi li ko faj li koy faj yomb na mu ngi jógee ci garab googu ñuy wax chloroquine muy néoakinine euh, moom nag euh, def na ci ay jàngat ba am na lum ci yokk ci néoakinine boobu am na yeneen mbir yu ci yokk te ne la lu yomba faj la ba mu ko waxee nag àddina bi yëpp dal ci kawam parce que mbirum garab yi xam ngeen ne business liggéey ay milliards milliards noo ci nekk te Niwaakinin wax dëgg yàlla nekkatun ay milliards moo dina réew mu neex mën nga liggéey mën nga defaral sa Niwaakin ak chloroquine moom nag euh, bi mu def bi mu waxee loolu mbir mi yëpp àddina bi yëpp ba am na sax ñu koy oo di ko menacer pour rey ko ndax moom la mu wax kenn ci nee na feebar bi lu yomb faj la lu yomba faj la ba nag faj na ci ay nit foofu ca France te foofu ca euh, studio fi muy fajee nit ñi rang yu bari ñoo fa nekk. ay nit ñu bëree fa pour ceytu ndax yore nañ feebar bi te suñ yoree feebar bi mu traité leen loolu nag euh, day wane ne rek mbirum feebar bi enjeu yi ci nekk maanaam mbirum xaalis bi ci nekk tax na ba xuloo yu werante parce que ñi ñi koy attaqué bëri nañ waaye nag gis nañ ne plus muy dem ca kanam euh, dafa am ñu gëm loolu parce que nag ki nga xam ne moo jiitee mbirum corona fajum coronavirus bi sa Sénégal ñu koy wax professeur Seydi nee na moom ña joto faj wér Sénégal ci niwakinin bi ak chloroquine bi moom la moom la moom moom la ko fajee euh, di wax ne rek waxuñ nag kenn nag waxuñ kenn nag mu dem di jëlal boppam niwakinin wala chloroquine parce que feebar yoo xam ne balaa nga koy jël il faut docteur bindil la ko ndaxte soo ko naanee mën na indi leneen nag ci sa yaram surtout nag mbirum cardiaque ñi seen xol yi dëgërul ñu mel noonu mën na leen gaañ kon nag ma baamtuwaat ko. dañ koy wax rek waaye nag waxuñ kenn mu dem jëli chloroquine waaw chloroquine moom ni kinin ku koy jël na ne fekk sa docteur moo la ko bind xanaa nag eh, di am yaakaar rek parce que nag man de gëm naa ne ci suma xelaat ne feebar bi li ko mën a taxawal Sénégal mooy chloroquine bii niwaakinine bii nga xam ne moom la docteur bi docteur Raoult wax te yàlla def moom mu juddoo ca Sénégal ca 1952 13 mars 1952 ca la juddoo woon Dakar parce que papa la fa moom mu nekkaat médecin wax dëgg yàlla mu mel ni yal nañ yàlla may sëriñ ci Sénégal yépp euh, euh, nit ñu baax yan nekkoon Sénégal commencé ko ci sëriñ si mag si muy euh, sëñ Ahmadou Bamba muy Alaaji Malick muy Baye muy maam layen ca Laayeen ak alaaj Umar Taal ak ñooñ sëriñ sooc yëpp nañ ñaan que feebar bi buñ wax faj nit ñi parce que Sénégal yorewuñ luñ leen mën fajee nañ wax ne na maa ngi jégalu nañ wax ne na nit ñi eh, am lu yomb lu leen mën a faj gaaw bañ mu dal kenn muy chloroquine bi man de am naa ci yaakaar bu baax parce que li tax ka ko feeñal ca Marseille juddoo dakaar wax dëgg yàlla dafa mel ni xéwal la Euh, léegi nag comme ni nga ko waxee nit ñaa ngi koy xeex ba am ñu ko ci menacé pour rey ko xanaa rek ñu wax ne nañ continuer euh, gëm sëriñ si nga xam ne euh, ñoom lañ topp ca Sénégal pour que mbir mi indi ci xéewal xanaa ñàkkul ne ñaani yi peut-être sax moo ñu ci boole ba waajooju jut fekk nekk ku juddoo Sénégal moom nag wax dëgg yàlla gouvernement France sax génne nañ ab décret def ko ci journal officiel journal bi nga xam ne mooy def loi ca France ne chloroquine bi mën nañ ko boole euh, di jox nañu autorisation docteur yi ñu koy bindal nit ñi moom président Trump sax fële ci États-Unis jotoon na cee wax waaye nag comme ni ngeen xamee mbirum feebar su feeñee milliards yi xëccoo yi entre pharmacie euh, ñiy defal garab yi moo ciy bëri ba mbir mi euh, doy waar kon nag mbokk loolu mooy yaakaar wi xanaa rek mbokk yi ñu continuer ci yeneen information pratique yi nga xam ne Euh, maa ngi ko doon joxe ci Facebook bi di wax ne euh, euh, réfugiat ñi ñuy wax richiedente asile ak rifugiati ñi nga xam ne dañoo jaar ci ndox mi ñëw bugg daw làqu yi fii ci Italie te ñàkkul wax dëgg yàlla ci mbirum feebar bi sonn nañ ci trop ndaxte ñu ci bëri kër yañ dëkk camp yañ dëkk dafa xaw a xat te jaxasoo bi bëri yàlla def na sax am na ci ñoo xam ne ñu ngi may oo itam seen yaram su tàngee rek ñu ooma wax dëgg yàlla man du ma docteur xanaa rek euh, sensible ci seen situation moo tax ma ciy jàpp mais am na ci ñoo xam ne ñoom comme ni ma ko waxoon ca temps yële dañoo ragal parce que kama ci oo Napoli ne moom yaramam day tàng moom de ba ma ko waxee oo ambulance dafa ragal bañ euh, nee na sax moom euh, dafa buggoon ñibbi Sénégal xanaa loolu rek muy wane ne ñi nga xam ne yore nañ seen kër doon liggéey peut-être ñoom am nañ ñu làqu mais ñi nga xam ne wax dëgg yàlla seen situation dëgërugul lu métti looloo tax euh, ay mbootaay fii ci itali muy euh, association bu ñuy wax ARCHI ànd ceeg mbootaay bi nga xam ne mooy taxawu daw làq yi ñu koy wax UNCA UNHCR ñoom def nañ benn numéro verde benn numéro verde boo xam ne Euh, ci réfugié yi réfugiato yi nag laa wax ku nekkul réfugiato bokkoo ci numéro verde yi nga xam ne ku ci am loo xam ne jaaxal na la ci sa wérgu yaram ci mbirum coronavirus bi da nga fay oote soo ootee am na ay médecins yu fa nekk ñu taxawuloo la orienté la taxu mën laa taxaw wax la fooy jaar pour xool ndax dangay def test wala dañ lay yóbbu hôpital numéro bi mbokk yi moom laa leen di jox nii mu nekk numéro cinquante 55 70 ma bamtuwaat ko 8 0 0 9 0 5 5 7 0 soo ko boolee mu nekk 800 euh, après nga teg ci 90 après nga teg ci cinquante 55 après nga teg ci 70 euh, mbokk yi donc loolu ñu ngi ko jaglee la daw làqu yi ni ñuy wax réfugié yi nekk fii ci Italie ku xam ne sa yaram dafa tàng nga am loo ragal soo leen ooyee ñoom dinañ la euh, caytu ba xam euh, ndax moom la wala fan lañ la mën a euh, taxaw yóbbu pour taxaw la kon nag muy ci biir Italie yëpp mbokk yi tamit def naa ci sax émission léegi beneen xibaar bi mooy def naa ci léegi waxtaan ci Facebook bi itali nag wax dëgg yàlla euh, mu ngi taxawu doomam yi nga xam ne ñu nga nekk ca bitim réew euh, parce que bi mbir mi amee doomu italien yi nga xam ne dañoo demoon bitim réew bloqué foofu dañoo am ay problème mënatuñ dellu si Italie ba gouvernement Italie muy ministère affaire étrangères jël ay avion di jëli ay doomam fépp fu ñu mën a nekk ci bitim réew parce que nag su fekkee ne réew mu nga nekk dëkkoo fa hôtel nga daloon te wax dëgg yàlla mbir mi italien yi fu ñu waxee nit ñi ragal leen euh, gouvernement Italie ne xaaral ma ñëw taxaw samay doom ya nekk ca bitim réew euh, mbir mi mbokk yi euh, wax naa ko ci Facebook bi waaye nag di wax na rek waxuñ italien bu weex italien lañ wax te xam ngeen ne ñi nga xam ne sénégalais lañ woon te yore passeport italien wax dëgg yàlla sakkan nañ fi mu nekk nii mbir mi am na ci ñoo xam ne sax dañoo demoon vacances ñu ci bëri. Euh, xam naa ci kenn muy suma xarit Modou Habib Diop mu nga foofu ca Daaru Musti euh, ñu wax dëgg yàlla kayiti passeport italien lañ joree waaye ñib si woon nag jafe leen gouvernement Italie nag ak ambassade Italie ba nga xam ne ma nga nekk ca dakaar moom nee na dina am defal vol spécial pour doomi italien ya nekk ca bitim réew su ñuy wax doomi italien nag waxuñ bu weex bi rek parce que comme ni ma ko waxee léegi euh, doom italien Italie nekk italien nekkatul ci der ci këyit passeport donc képp koo xam ne yore nga passeport italien nekk Sénégal contacteel ambassade Italie ndaxte ñoom ñu ngi préparé benn benn vol pour mën jëli doomu italien yooyu te doomu italien yooyu am na ñu ci ñuul maanaam ñoo xam ne euh, Sénégal lañ juddoo woon waaye nag yore passeport italien yi su boobaa mbokk yi euh, di nga mën dellu si itali xam naa ni su suñu delloo ci suñ delloo si Italie dina am ay matuwaay yu ñu jël ci ñoom loolu ñuy wax mbirum quarantaine wala taxu leen wala contrôle leen xool ndax amul amuñ feebar bi avant ñuy dugg Italie defoon naa ci benn numéro nag ci Facebook am nañ ma nañ ma numéro bi itam dangay ngay woo kenn du tontu waaye mbokk yi li gën a wóor rek soo nekkee Sénégal yore passeport italien jokkalanteeg ambassade Italie foofu ca Dakar mu nekk rue yu Tall foofu ca biir Dakar. mbokk yi donc loolu mooy xibaar bi nga xam ne mooy ñaareeli xibaar ci mbirum prat euh, information pratique ñuy wax ne tamit wax dëgg yàlla gouvernement Italie nee na euh, dina dimbalee ñi nga xam ne dañoo doon liggéey seen liggéey bopp yore seen liggéey bopp te ñu koy wax euh, partita IVA ñooñu nag dinañ leen dimbale ci mois de mars ku ci nekk 600 euros. xam naa ne mbokk yu bëri nag ñu ngi ma ciy fi mu nekk nii xanaa rek di leen yëgal ne mbir mii euh, semaine prochaine lay leer euh, te nag lépp demande yi ñu ngi koy def ci IMS di leen wax ne képp koo xam ne soxla nga ci nga nekk Milan wala nga nekk beneen dëkk rek am na sax ñu ma ci oo ñoo xam ne ña nga Sénégal euh, semaine prochaine incha allah su taxawee dinañ ci taxawal service pour man taxawu defal demande yi nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci cas boobu. Euh, di leen wax ne nag euh, téléphoné euh, wax dëgg yàlla dina jafe pour mu mën a tontu téléphone ñëpp li gën a leer rek mooy képp koo xam ne soxla nga ci nga yónnee WhatsApp te information bi ci génne mbokk yi dinaa ñëw tas ko fii ci rajo defaral suñu bopp ba noppi wax nan la ñuy defee demande bi ñun nag wax dëgg yàlla xam ngeen ne bureau yi dajaloo kenn mënut mënatu fa nekk waaye nag yàlla may nañu fu nit mën a nekk suñ jokkoo rek bañ a oote parce que oote bi du ma mën di tontu ñëpp. parfois damay wax ak nit balaa ma su may paree dinaa gis fukki nit yoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw doon ma oo waaye nag xam ngeen ne comme yàlla may na whatsapp rek yónnee leen message bi ci whatsapp su boobaa li ci war ndànk-ndànk dinañ la tontu wax la yan këyit ngay laajte eh, ak liggéey bi nan lañ koy eh, saafara kon nag mbokk yi lii mooy xibaar yi nga xam ne lañ leen indi indiloon muy xibaaru eh, ci. information ci mbirum euh, coronavirus bi di leen ñaanal jan jàmm mbokk yi di ko ñaanal euh, ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci Europe Italie ak ci yeneen pays européens ba noppi di ko ñaanal ña nga xam ne tamit ña nga nekk suñu réew ak àddina bi yëpp mbokk yi ñu ngi leen di jërëm gërëm seen xarit bàyyi Diouf fii ci rajo defaral suñu bopp di leen wax ne nag chargé leen application bi parce que am na xibaar yoo xam ne wax dëgg yàlla te ci fan yi à partir de semaine prochaine dinañ ko faram-fàccee. képp ku ci dégg dinañ laa wax nooy mën a def pour que mbir mi loo ci war a am ñu wax la yoon wi euh, su boobaa wax dëgg yàlla waxtaan wi day gën a yomb ak taxaw bi day gën a yomb que di téléphoner parce que nag euh, tontu téléphone beneen <laughs> nit mën na ci yandu di ci tontu waaye nag foog naa ne mën nañ déggante te xam ngeen ne fi mu nekk nii kenn mënul génn kenn mënul dem fenn waaye nag yàlla def na ñun ci suñ bureau ñu ngi fay liggéey waaye nag duñu recevoir kenn. ak euh, internet bi am na lépp loo xam ne war nañ ko liggéey ñu liggéey ko mbokk yi ñu ngi leen di nuyu seen xarit bàyyi Diouf fii ci rajo defaral suñu bopp euh, ca Milan euh, ñu ngi leen di ñaanal jàmm ba beneen yoon ba subaak jàmm incha allah jërëjëf.